mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen tey nag ñu ngi toog ak koo xam ne nii yaakaar naa ne bu ngeen ko gisee duñ leen ko présenté ci wàllum làmb muy Gris 2 di rakki Gris Bordeaux bokk écurie Fass yaakaar naa ne xam ngeen ko bu baax a baax internet yëpp nuyu nañ leen ziar leen tey seen mbër la ñu seet si champion maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw sëñ Babacar maa ngi lay fay di nuyu internet yëpp rawatina ñuy suivre Leewtoo. di la nuyu bu baax di nuyu Sénégal yëpp di sant yàlla di julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sant suma ñaari waajur sant suma Serigne Seydi Aboubacar Sy radiyallahu anhu ak bépp kilifa diine rek bu nekk ci réew mi rawatina waa Médina Fass Colobane Gueule Tapée di nuyu waa écrit Fass yëpp commencé ci président bi bu ko gën a tuuti di nuyu suma yaay ak sama famille ak képp koo xamante ne rek mu ngi bëggee Gris ci daara ji dong daara yu tëj ay ay seen nangam sangam yow ngay dongo daara coow loolu dégg nga ko. waaw dégg nañ ko mais ñu si bëri rek affaire bi des fois day def reetaan parce que da ngay xam ne ñi siy wax ñëpp ñu si bëri dëgg la Sénégal munoo wax ne dañu bañ daara wala dañu bañ alxuraan parce que dëkk la boo xamante ne ñu bëgg wàllum diine la mais dañuy wax ci lu ñu maîtriser wul waaw parce que kon wax rek taalibe boobu tey ñu chaîné. rangele leen ku leen xool boo xamul daara sa yaram daw wala nga xas sëriñ ba dix ans ci kanam dix ans ci kanam boo taxawee ci kanamu taalibe yooyu ñu seene woon boo xasee sëriñ bi ñoom ñu xeex ak yow parce que li leen sëriñ ba jariñ ci àdduna daara c'est autre chose mais dafa nekk système boo xamante ne nit ñi jéemuñu découvrir daara jéemuñu découvrir daara xamuñu si dara dañ ciy dégg ay scandale la parce que daara li mu rafetle toujours duñ ko publier boo seetee tey léegi sax la net bi ñuy jël nit dem jël champion du monde ci wàllum alxuraan ñu lay publier mais loolu ba ko Sénégal dalee di jël ëpp na vingt ans di dem ci ay dëkku naar ci daara mat yooyu dem di jël ay championnat du monde di ko fi indi mais nag affaire bi intéressé wu leen woon trop moo tax nag instant bi il faut ñu def ci nànk mais est-ce que est-ce que tamit jël nit yeew ko wala takk ko est-ce que loolu maanaam du moo tiital nit ñi affaire yu mel noonu ba tax ñu ci wax wala moo tax ma ne dañ ko xamul xam nga ñu si jaar daara tey bu fa injustice amoon esclavage bi ñuy wax bu fa amoon ñi fa génnee dem ba mature tey ji Serigne Boub CCBM ci daara la génne Mbaye Sarr Sénégal Tour ay sunu papa as ndaw ndukumaan ay ñu dul jeex tey boo demee marché Sandaga dem marché HLM dem marché Tilène bu fa cent cantines amee quatre-vingt yëpp ay taalibe la ñu woon yoo xamante ne dañ leen doon yeew du ñu xam boo jugee daara man mii tey daara ji ma nekkoon ay milliers de personnes a fa nekkoon. mas nañ laa yeew. non bañ a yeew. jëng la ñuy tëj. tëng ah takk comme kuy takk xar te kama ko defoon tey jii ci àdduna moom laa gën a bëgg ci àdduna dafa am loo xamante ne. ku ci waral ñu koy def. waaw parce que tey xale boo xamante ne tey da ngay fàq di dem. ak dëkk bi nga xamante ne da nga yeewoo ci kër yaay ñu sàcc la kenn dootu la gisati ñu jox la ay doomu jàmbur doo leen bàyyi ñuy daw di dem di dajeeg saay saa yéeg reykatu xale yeeg yooyu ñu leen di sànq te mënutu amoo benn moyen bu dul def ko noonu te def bi du éternellement da nga ko def pour benn 15 jours wutal ko ay ñaan ba xelam nekk ci jàng mu toog parce que alquran mbir la boo xamante ne jibril alayhi salaam ba mu waxee yonente bi iqra ba mu bañee da koo xoj mbëggeel ak cofeel bi mu am ci yonente bi di bàyyi malaaka di ko xoj loolu kon xam nga ne loolu kon c'est autre chose te alxuraan dafa diis mënul dugg ci bopp boo waxee nit ñi am noo te nit dafa war a jàng di wàcc bu dee da nga bëgg Fatiha ak saar booy jullee bu la neexee nga toog sa kër bu la neexee nga toog sa kër. woo benn yàgg maar mu la koy saa. woo benn nit fii nii mu ñëw di la ko saa nga am sa loo jullee mais nag bu dee nag da nga bëgg. bind kaamil tari kaamil mokkal alquran am formation wu daara sa xol toj loolu moom da ngay déplacé wu laxasaay. yow yow nee nga yeew nañ la jé wala jéng nañ la yow biñ la jéng loo defoon bañ jéng la yow. waa man ay bêtises. comme yan da bëggoon a daw wala da ngaa dóore woon wala loo def. suñu sëriñ moo tax ma ne la ku xamul rek yaay wax man mii tey dañ doon simple dex. simple. dex mooy dem ci kaw pont bi di tëb di dugg ci biir ndox mi. yow ban daara nga ne woon yow du ndar. ndar daara sëñ Maxsin te ñu suñ sëriñ daf ñu doon tere géej gi di ñu tere dex gi parce que bañ na ñu sànku ci ñu lap ci ñu mu fekkuñu foofu loolu na bu loo ci jëfee yeew la benn benn cinq jours wala dara après nga tiit da ngay bàyyi dex gi complètement parce que chaque année ay nit daan lab foofu ci dex gi te ñun duñ ci bokk parce que suñu sëriñ bi ngi ñuy aar yu mel noonu la mais nag ku ko xamul da ngay prononcer esclavage xameewuñu esclavage esclavage esclave yi dëgg ñu ngi fii ci dëkk bi sol ay costume yu baax toog ci ay bureau nekk nekk esclave te xamuñu ko yëguñu ne sax ay esclave lañ parce que esclave bu ñu demee ba réew ku làkk tubaab juum ñu ree la ku jàngul tubaab ñu jàpp ne waroo tekki génnee la ci société bi kon loolu loolu foofu la esclave yem alxuraan nag ak daara yooyu fii la leen tubaab bi fekkoon ba ñuy ñëw fi lañ leen fekkoon te ba ñuy demaat fi lañ leen bàyyiwaat. yow su ma la déggee daa mel ni da nga jàpp ne tubaab bi moo ñuy xeex ba tey de. mooy xeex daara yi boobu. bien sûr mais alxuraan xam nga alxuraan dafa déranger ci àdduna bi yëpp. sénégalais yi nag dañu bëgg alxuraan mais comprendre ñu système mu daara moo tax ñi si bëri ñu ngi wax ma ne rek moo leen jàpp waaye ñu ngi yërëm ñoo xamante ne bu ñu xamoon ki leen tiim parce que yàlla nee na bu dee am na njaboot ci kaw suuf jàngalekatu jàngkatu alxuraan yi la. yonente bi feelu ko ne xayrukum man taallama alquran wa allamahu mooy nee na ñi gën ci yéen mooy ñi jàng alquran ba pare di ko jàngale mais nag loo xamul rek xamoo ko mais alquran ay produit man mii tey sama ay mbokku taalibe yoo xam dañ leen doon seene ñuy daj lu ne tey bu ñu àndoon man ak yow ba mu ne la kii nii dañ ko doon seene danga nga naan c'est pas ndax kilifa ak responsabilité yi mu yor ñu ma bokkaloon daara ay milliers de personnes lañ ñu si ne gars yi partout dans le monde fu nekk la ñuy nekk di taxawal ay entreprise ay profité di nuyu suma xarit Ibou Sow nga xam ne Africa Shop Brésil la ubbi benn kii boo xamante ne te xamul fa fan la école féete. te Daara yéen a du ñu jeex ci àdduna di ñoom Moustapha Mohamed Mbuub États-Unis gars yi fu ne Gambien yëpp. Gambien yi duñ fa jeex boo demee marché Serekunda ñoo fa fees dell yor seen ay jaay di jaay. xam nga ñii ñu ngi ay Kaolack Dakar ñu ngi fii fees dell koo ci dajal mu ngi yor otoom tey bu ma la wanoon suñu photo yi ma ne la kii mooy kii léegi kii mooy kii léegi da nga lii du dëgg te jaar nañ ci loolu waaw ci takk yeew tey jii nii ñu ngi dund à l'aise ànd ak yar ànd ak respect doo leen dégg si dara lu ñàkk xorom amul kenn ku ma bokkaloon daara tey jii nii nga gis ko di ko yërëm wala nga gis ko di ko taalibe yi sax ngay romb nii di leen yërëm boo ci toppoon kenn ba ba mu màgg nga xool ëllëg fu muy nekk di nga xam ne ñii parce que innaa nahnu nazzalna dikra wa innaa lahu lahaafizuun yàlla nee na ma alquran bi maa ko wàccee te maa koy sàmmal sama bopp moo tax ñi si nekk ak ñi si xamul loo xamul wala bu la intéressé dëgg nga dem gëstu ndax sëriñ bi ñu jàppoon ñi nekkoon ci buntu tribunal bi di kaas ay taalibe la ñu xooloo tey école bi pour nga bind livre il faut nga dem ba yegg université ba nekk paa sax door a bind ki ñu tëjoon nii jàngal ay xale yu am vingt ans bind kaamil six mille six cent soixante six aaya xale bu ndaw bu majeuragul di ko bind kooku jarul jarul loolu jarul lu ne benn kaamil bu nit bind ci loxoom rek mën nañu aar ñun ñëpp ñun ñu ngi ci làmb ji ñii ñu ngi ci mbalax mi ñi ñu ngi fe non si ñii ñu ngi fecc yéen a ngi reporté ñun ñëpp ci li ñu nekk du ngërëmal yàlla ñële nag nekkal ñu ci naaj bi nga xamante ne ñun ñooy naqaral yàlla ñoom ñuy bégal yàlla ñu le nag nañ leen may jàmm ku leen yërëm boo dajeeg ñoom sa weccet jël ko nga joxe ko jàppale daara ji ku ko mën na def xam nga ku ko mënul na nga bàyyi leen te ñaan yàlla di la taas ci seen barke parce que àdduna bi moom bu ñoom yëree kii wag demal ci hôpital yi nga dem ci hôpital yi Albert Royer wala dara fi xale yi tëdd ay doomu patron rek nga fay fekk rarement ngay gis taalibe yi di tëdd hôpital nga xamante ne yàlla moo leen. Ah, man loolu lool itam di nga ma ci wax dara de parce que man dama gis taalibe yi ñoom li ñu li ñuy lekk du ñu sol dàll nangam sangam te duñu waa lu leen di aar. waaw parce que inna nahnu nazzalna naa wa inna lahu lahafizun yàlla mooy dogal lépp te nee na man bu dee am naa njaboot ci kaw suuf ñii la. kon ñii loolu loolu seen secret. njabootu yàlla njabootu yàlla xam nga ne kooku du tumuranke dina am nag ñu si feebar ndax ay nit lañ mais rarement nga leen di gis ci hôpital yi ñu jaloo fa wala dara rarement parce que njabootu yàlla la ñu xam nga gars yi nag bañuñu alxuraan de bañuñu ko Sénégal mais ñu si bëri li ñuy wax dañ ko xamul parce que jékki-jékki rek toog gis benn xale bu ndaw ñu takk ay tànkam ak chaîne bi ni mu ñàngee noonu xam nga loolu noonu yow bu dee nit Sénégal nga xamoo loolu dalay jaaxal mais ku ci dem gëstu daara wala xale boobu tey ñu yeewoon nit ku mu intéressé nga topp ko ba mu màgg nga xool ko sëriñ boobu yeewoon ko ci bakken bi la koy teg parce que dina xam ne kii rek sama passage yëpp taalibe yëpp seen jaar-jaar yëpp temps bi ñu am ci daara moo leen gënal ci lépp ci àdduna parce que xam nañ ne temps boobu rek mooy dëgg donc àdduna lis des yëpp ay détails la parce que stratégie la après boo boo ci génnee alxuraan li des yëpp tic tac la waaw dam la rek am nii joxal nii defal nii kërëb kërëb xool ñu mu tekkee ku nekk di mbartalu di xool noo tekkee mais alxuraan rek mooy dëgg mooy assuré moo mën a aar dëkk yi ñuy lijjanti si dëkk bi yëpp alxuraan rek moo ko mën a la leneen mënu ko fi waaw te mag ñëpp ci la ñu jaar sëñ Muntaxa mii tey toog Tuuba yal na yàlla guddal fanam ak sëñ Mbay buñ la waxoon liñ daj ci daara da nga loolu du dëkk te ay doomu kilifa lañu da ngay dégg sax am ñoo xamante ne dañ naan est-ce mi ngi takk doomam doomam li muy daj xale yooyu duñ ko daj parce que ku si nekk da ngay jël sa doom jox ko sa morom. maanaam doo yaral sa bopp sa doom. doo yaral sa bopp da koy jox beneen sëriñu daara te bu fa demee day xam ne papam sëriñ la moo tax da koy teg ay sanction ak mokkalu par force parce que xam na ne papam sëriñ la bu demee da koy teste est-ce que léegi du comme parce que nee nañu àddina bi daa changé droit de l'homme yi fii xam nga droit de l'enfant droit de la femme yooyu ngay dégg est-ce que yooyu tamit <laughs> méngoo naag yi nii wala. waaw xam nga ñooyu loolu li ñuy wax noonu yëpp dëgg la yooyu yëpp parce que ñoom loolu seen lu ñu maîtriser la pour ñoom xam nga ay droit de l'homme affaire yooyu noonu xam nga parce que rek gars yi ñu ngi koy wax xale yooyu ñu ngi leen jàpp ay nit la ñu ñu foto leen génne seen kanam te réew mi fii ku fi def musiba. boo fi rayoon cent personnes sax sa photo duñ ko génnee dañuy muur sa kanam ñu jël taalibe yi def leen noonu exposé leen xam nga moo tax yooyu yëpp ñoom loolu seen domaine la mais domaine bii nii daf leen a wul parce que bu bu leen intéressé woon dañuy def ay enquête mais intéressé est que duñu ay ay sénégalais la ñëw tamit bokk ci réew mi. intéressé wu leen mooy boo déggee mooy ñi ngi ciy wax mais jëfuñu si daara. lan mooy jëf loo tuddee jëf ci yow. jëf mooy nga dugg ci biir daara ji def ay enquête temps normal benn bêtise amul dara amul nga dugg ji fekk daara ya fa ñu nekk parce que boo seetee dakaar rek moo am ay cambar càmbar mais ñëpp ngi àll ba nekk ci àll ba soxlawuñu subvention soxlawuñu daray état di dundal seen bopp parce que yàlla moo leen gérer boppam ba pare nag di produir yoo xamante ne réew mi yëpp réew mi yëpp dañ ci dañ ci dañ ci bénéficier wu xam nga duñ ko seetloo te amuñu publication amuñu lu leen di défendre amuñu dara loolu rek seen ay làmmiñ lañ yor di wax xam nga amuñu benn feu vert ci réew mi te tamit nangu nañ ko parce que alalu yàlla la te yàlla lu mu gérer soxlawul ay di ko défendre ñu ñi ñëpp dañuy leeral rek pour bëgg ñi nga xamante ne dañoo toog gis photo yi bëgg nañ alxuraan bëgg nañ diine mais comprendre ñu foto yi pour ñu comprendre xam naa takk bee leen tiital xam nga takkit seen it daa xaw a dafa bëri yërmande mais dama wax nag ñooñu ñu yërëm ñooñu ñooñu war a yërëm ñun ñu ñi nekk fii di ngembooka di fecceek di ki ñun ñooñu ñooñu ñooñu nekkal si naaj bi ñun bu ñu tàngalee xolu yàlla journée bi yëpp ñooñu ñooy yeewu fajar di jàng alquran yàlla muuñaat waaw mooy mélodie suñu borom ni nit di dégloo son di ko bégee alxuraan xale yooyu noonu ñoom la yàlla di déglu di kontaan. mais li nga wax yëpp am na solo tamit mais est-ce que nit ki tamit waree su koo mën a jàngal ba mu ne ar ba nekk quelqu'un ëllëg te dee su ko takk di ko jéng ak def affaire loolu war na mën a ne wala. waaw loolu mën na ne parce que am na tey boo demee parcelle ay internat yi du jeex dakaar noonu mais àll ba tey parcelle tey internat yi fay am ni ñuy organiser ay tabax yi ñuy am bâtiment yi ñuy am tabax ko. loolu bokkul ak environnement boobu bokkul ak àll bay seene ki nga xam ne mat lay jaar yooyu. xamante ne ay sàkket la defar wala dara kooku mënul tëj xale mënul tëj xale boo xam day bañ a daw néeg yañ fay def boo fa tëjee xale sax mu mu ubbi sàkket bi te dawkat yi dañuy yéeme yéeme koo xamante ne da ngay ay jinne la ñu. loxo mënoo koo xam ah da nga daan seene nit ba yërëm ko tànk yi neew yi nii si daara mu toog di jooy guddi naan dafa seere nga yeewu fekk mu sumi seen gi dem. da ngay teg ne sax jinnee ko tekki wala dara mais loolu ku ci nekkul mënoo ko comprendre moo tax ñu bëri di wax nii di défendre yërëmtalu da nga leen di comprendre. yow nañoo takk sa seen nga tekki ko. non man du ma daawkat man moom du ma woon daw nii. nee nga takk nañ la. waaw mais ci kaw bêtise rek. ndax am ay daw yu ëpp ay géej. wala dem seetaani làmm affaire yooyu noonu sëriñ bi mës na gis tamit suñu ay photo suñu sëriñ waaw parce que ay nitu daara lañ woon ba pare dañ daan def ay tournoi kenn ubbi valise rek far mu yam ci xool album bi ñu gis ay photo yu ñuy kaana kaana loog yooyu sa <laughs> boobu ay taalibe la <laughs> mu woo yii jour boobu gars yi duñ ko fàtte mukk ci àdduna waaw jour boobu moom liñ daj ci àdduna bu doon tey jii la ba ñu filmé ko bis boobu xam naa ne Sénégal yëpp ay yëngatu ndax jour boobu luñ dajul ci àdduna amul ay dóor ak yu mel waaw dóor bi ni taxawloo def yoo xamante ne yu doy waar mais tey yooyu yëpp loolu parce que xam na ne ñun nekk bokkuñu woon foofu. duñu woon seen place ah, duñu ay yii yii duñu ay mbër ay nitu alquran lañ ñu war a wax ëllëg buggul ñuy foraatu ay jikko ci mbedd. moo tax alquran beneen mond la waaw daara mond la ci biir mond bi waaw moo tax nag bu waa monde bee duggee di jéem a lijjanti waa mond bee day compliqué. ñun waa àdduna nii ñun ñun waa tooñ yàlla dañ dañ nekk ci li ñu nekk. Ah, waaw bëree kuy fecc kii ñu bàyyi ñële nga xamante ne ñoo yor suñu sécurité ñu gérer. Mm-hmm. yow ñoon nga tuddee waa sécurité bi. non ñoo ñooy sécurité bi. am na solo alxuraan sécurité bi waxi suñu borom waaw. waaw wala ah, alxuraan maa wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'miniina ñooñu seen ay mbir mooy suñu yërmande waaw ah, alxuraan yërmande la bu rëy ci jullit. mais yow sa sëriñ mu ngi lay gis ngay bëri nii. waaw damay gis de des fois <laughs> des fois xam nga rek bu ma ko gisee ma ne ko man yaa tax may bëree mu ne ma ii ma ne ko waaw parce que yaa ma doon xasee ngay mel ni mbëru làmb parce que daf ma ko daan xasee daara ja parce que comme que xawoon ngan ne nii ma defee bêtise mu nii ngay mel ni mbëru làmb ma ne ko nag yaa ma ko doon bëgg xasee nag. gémmiñ nga am barke gémmiñ nga am barke nag ba far ma dugg ci. waaw maa ngi koy ziar bu baax a baax muy nit ku bëgg taalibe nit ku sonn ci taalibe dañ daan wax ne ñëpp ngi voyagé màkk sax munuma faa dem ndax ay ay taalibe yu dënk waaw du sax chaque année nit bëgg ma yóbbu màkk ma bañ ndax ay taalibe yu dënk yéen ma sonal du ma dem bàyyi seen bàppa yi fële ñu nekk si seen jàmm ngeen ñëw fii sonal ma tous joxoo leen ma ko waaw moo tax muy jàmbaaru alxuraan boo xamante ne moo tax yàlla fay nag ko parce que Alioune Sow TSE yàlla na ko yàlla yërëm papa Yérim Sow moo ko tabaxal daara ji tabax bu doy waar te jàngewu fa ñoo ñoo xamoon alxuraan waaw xeetu nit yooyu milliardaires yooyu ñoo ñoo xamoon cëru alxuraan tabax bi mu fa tabax boo ko gisee da nga lii amul te dërëmu kenn demu ci lépp moo ko financé defar daara ja defar bu doy waar waaw te loolu moom xamoon nañ ne moom sëriñ bi xamoon nañ loolu dina ko am waaw parce que ñi mu formé rek ñi jaaree ñëpp ci daara ji rek mënoon nañ tabax lu ëpp loolu parce que foofu borom alal bu ne tey jii nii koo xamante ne yàlla dénk na ko teraanga bu ne jaar na ci loxoom maa ngi ziar nag samay mbokku taalib yëpp di ziar quran di leen wax ne leen nañu baal gaa yi wax rek te ñu ñu sànni ñaan ñëpp parce que ñoom loolu mooy seen rôle waaw gaalu yàlla moom ku ci yéeg noo def nga dégg ay wax mais ñoom nañ ñu dimbali rek yërëm ñu ñun waa côté bee nañ ñu yërëm ñaanal ñu yàlla. kontaan ci yow.